man daw caam ñu bokk benn baay waaw waaw kii jóge ci dogo kii jóge ci dogo yaay borom maamu bese bese waaw buñ nee dogo rek yow yaay dogo fii original original dëgg la waaw ñun dañoo am suñuy jaam kon ñun buñ nee dogo nit ñi xamuñu luy dogo aji waxal luy dogo. dogo. dogo. dogo. dogo. dogo. Well, we have to thank the Let's go. Let's go now. Let's go, let's go, let's go. Let's go. What are you going to do? What are you talking about? Waaw. Yep, yep.